maa ngi sant yàlla bu baax di nuyoo tey nag duma tal play Pape Diouf ndaxte dafa am métier yu noble yoo xam ne bu leen nit ñi xamoon ak jox leen seen cër bokk na ci métier yooyu mooy baykat bokk na ci métier yooyu mooy docteur bokk na ci métier yooyu mooy jàngalekat bokk na ci métier yooyu mooy avocat benn bu ci nekk dafa amoon ci ëzët bi nga xam ne yàlla bind na jaam ñi bokk na ci darajaay yonantu bi mooy mooy doon avocat ëllëg moo tax suma sëriñ na ko nabi shami xarmi imaami fa kun muami yowmal jazaa'i ndax keroog benn lamiñ rekk mooy wax mooy bosam euh, docteur doon loo xam ne nit day wéradi te kenn moo ko mën a wérloo mooy docteur benn muy sëriñu ñaankat walla docteuru western education euh, yonent yàlla adama bi ko yàlla bindee ak loxo mi daf ko ko xaral ngir mu ciy ñaan yàlla ak bañ bi mu wàccee àddina gis na lekk amatul euh, ni mu daan amee àjjana mu téen na yàlla dama war a lekk mu ne ko ndox maa ngi suuf saa ngi yaa ngi ci la bay moo tax sëriñ bi mu ne mbooleem métier ci àddina seen cosaan mooy bay te bàyyi mbooleem bàyyi moo njëkk a bay euh, dafa am lu ma métti lu ma naqari mooy métier am avocat ni mu riche nga xam ne tey képp ku dem ci wàllu yoon ñoom ñoo la war a plaidel taxawu la ba nga jot sa àq métier muris moomu su fekkee dafa am ay kaña ay nit ñu tekkiwul dara ci seen biir nga xam ne ay politiciens leen di mbubboo avocat bi ñu doon waaye tamit ñeme nañu yàlla ba mbir mu xew ci justice nekk en cours de justice dañuy am fiti toog ci plateau tele di ci waxtaan ba pare suñ ci waxtaan di ci fen di duul di wax lu amul dafay jaadu nag ñu leeral loolu euh, dégg ngeen benn avocat mu ne dafa dugg ci dossier kalifon bi ngir yàlla ak jàpp ne tooñ dafa am laajut xaalis euh, ci xel boo jëflanteeg sa moroomi gor nga gëm ne den ko tooñ parce que da ko jàppee sa papa wala sa sœur wala noo ko mën a jàppee bés boo toogee ci mbooloo mi ne xaalis taxu rek kon daraja moo tax ak bugg siw parce que xaalis mooy li gën a tuuti ci lu war a motiver nit su dëgg taxawee ndax dëgg amul njëkk xeex ko lu dul dëgg jaru ko moo tax euh, wa anal xaq ku ko wax jaasi sariya rey waroo ko wax ndax dëgg dafa unique moom avocat boobu boroom xam-xam bu mag bi ñuy wax Cheikh Moustapha Dramé yàllay kese xam ngeen ko Cheikh Moustapha ci lijaaba gi Cheikh Moustapha ci mën a ñaan yàlla gi yéen ñëpp xam ngeen ko Sénégal du ko nëbbe ku ko fi mus a tooñ téegal na la ku ko fi mus a jox sa xaalis sa xol sedd na euh, lu dul noon yi nga xam ne dañuy jóg rek di wax lu leen neex Moustapha Darame moomu dafa am problème ñu tooñ ko mu respecté loi bi parce que xam ngeen jaar na ci soldat mënoon na ko xeexee baatit mënoon na koo bàyyi waaye dëkk bi dafa am yoon mu porte plainte jël avocat bi ki leen boole gendarme la bu nekk section recherche bu sant jóo bi mu koy jox xaalis bi mu ngi teew avocat bi laaj ko quatre cent mille mu jox ko ko cash moom avocat bi wax ne bëgg dëgg ak fonk métier moo tax muy farle te xaalis taxul même avocat moo lekk quatre cent mille Moustapha Dramé yàllaay kese ba pare plaider lu ko su ko woowee du ko jël taxawut ko ci dara noonu la jógee dem uti beneen avocat te ba tey mu ngi lekk xaalisam toog may laaj sénégalais nag ak nit ñu am xel ndax mbir dana xew sa yoon nekku ci nga dem ne dañ ciy dugg ngir danga koy dimbale parce que dëgg nga bëgg nit dëgg nga mooy danga am principe den la yar danga bokk fu baax bëgg dëgg moo la ci taxa duggu dugg laajoo dara te ku ne xam na ne mag buy naan suukar buy naan ndox mu tàng suukar saa tax wala ci beneen langage kuy dagg-daggete tax yow am koo xam ne sénégalais la nit la mbindeef la kilifa la am problème ñëw ci yow ñu boole kook yow mu yaakaar la jox la 400000 fekk yaa ngi campagne parce que politicien nekk sa dëkk nga xam ne dëkk bu ndaw boobu munoo koo gañe yow munoo gañee dara parce que amoo xorom amoo bayre nit ñi wóoluwuñ la parce que Sénégal dafa xat nga jël xaalisi jàmbur campagne ko ba pare fayoo ko plaideloo ko wax dëgg neex yàlla métti na mboolem koy avocat ci réew mi parce que day yàq deri avocat te avocat métier bu noobu la ay nit ñu baax leen mais loolu su avocat yi seen der yàqoo fu procureur jëm fu juge jëm nit ñu mel noonu ci biir avocat yi dañ leen war a seppi di leen leeral jikko ju bon la te du bii rek de xam nga man ñemewuma yàlla wala yabuma suma suma mbokk yi wala suma bopp ba ñëw di dugg ci mbirum avocat te waxuma dëgg kooku moom xalaatuma ko suma intelligence weesu na loolu mais nag am naa fit ci wax dëgg ak ku ma tooñ defanteeg yow ba soo defee lu jaadul ma taxaw ci àdduna assumé na yaa ko def yoon benn la rek kenn moomu ko kenn moomu ko te avocat bi war na xam ne kii ku am fulla la ku am fayda la ndax bam solee robb avocat am ci liggéeyam taxaw wan naa ko ne doom juñ yar la am naa fu ak fenn ku fa nekkoon xeeboo ma yaboom kon pour man Sénégal pour mu dox balaa ñuy joxe éthique di wax naan nangam nangam ay nii di théorie nit ñi di jaay làmbiñ bu rëy dañ ko war a jëfe munoo tànn mécc jàng nu mu métti nga jàng sonn ci say parents def sacrifice dema dema dema dema dem ba yegg fenn fi nga dem yàlla dimbale la nga nekk avocat ñu bari bëggoon nañ koo doon nga ne da ngay dem def dara parce que da nga gëm ne tooñ la dangay xeex dëgg te ki la yaakaar si sa métier jox la 400 000 am nga campagne ko perte lekk ba pare ñëw sonnal nit ñi joxoo ko xaalisam toog naan da ngay nekk dëgg loolu fen la kenn mënu koo rafetal bu ñu fi nekk di layam layamee ko jàddu góos ak duraat loolu fen la duul la tappale la. tiriyaa la du jikko ju baax te day yàq mbiram mbiram avocat loolu wérul loolu baaxul na ci avocat yépp taxaw na ci justice taxaw na ko nit ñépp xam te su ngeen di jël avocat wax naa leen bu ngeen jël ñu mën ñu mànd ñu ragal yàlla yi mais la yambar yu xuutar xuutar yi nga xam ne mbiri kali bi dafa jug rek ah ñu xam ne Californie am na bayre am na buzz mbir mi dina siw ndax doomi xaraam yi nekk ci internet bi di ko jéem a gonfale naan waa na fanaani kaso na nangam rek nga ne parax dugg ci biir mënoo am teey bay dem ci média di waxtaani lu nekk encore mel ni ku xamul justice moo tax yenantu mu ne na ngeen moytandiku rëy ndax rëy day dugal nit ci lu nekk na nga moytandiku bëgg siw daf lay dugal ci lu nekk donc yenn actes yi sax warul nit ku am xel rawatina avocat bu ñu dem ba seede na am nga xam-xam ba def la avocat waru la mais li ñëpp di d'accord ak man mooy amul benn métier nag moo xam ngay mécanicien moo xam ngay jàngalekat ak lu mu mën a doon nit jox la xaalisam nga war ko plaider nga lekk ko bañ koo fay mel ni senegal du réewum droit te ka ko def avocat la nekk ci réew mi di xuutal xuutal mel ni nit ku baax la ne da ngay jàppale nit loolu du jikko ju baax lii moom ñëpp war leen koo xeex ku nekk ci àddina war naa xeex lii. du lu baax ba pare ma wax leen ne képp ku ci am dossier avocat fen la walla tappale la bul rus bul ragal moomuñu yoon dañoo bokk ci ñi nga xam ne sax wax dëgg yàlla su nit ñi doon ñàkk def yoon ñoom waruñoo ñàkk a def yoon parce que dañoo xam tey man mun naa toog ma def bàkkaar suma xel kenn du ko bind waaye yenentu yàlla loolu ba ko xaj bi rombee mu gàññ mu gàññ ko ci xolam yàlla daf ko ca topp ndax fa ko yàlla yéegal moo tax kon man mun naa ñàkk a topp lu loi parce que xawma benn ignorant laa rek mais yow mi jàng ba xam ko ngay arnaqué nit ñi di lekk seen xaalis di ko politiquer te doo leen plaider dëgg-dëgg lu ñaaw na àdduna yëpp yëg lii te bëgg naa yéen journaliste ngeen tàllal ko micro laaj ko mbiru Moustapha Darame 400 mille mi fu mu ko def ak lan moo tax bi mu ko mënta plaider mu tardeel ko ba pare joxut ko alalam fan la ko teg te wallahi gënul ko ndey de gënu ko bàyyi gënu koo dëkk ci dëkk bii ëpput ko fit te xam nga ne dox du liggéey xaalis bay liggéey quatre cent mille francs mais Moustapha ku ñu yar la taalibe la ku am ndigal la doom ju baax la moo tax bi loolu xewee mu xam ne du nawleem rek mu rasu bàyyi ko ci biir waaw ku muñ rek xam ne yàllaay buur Sëriñ Tuubaa mu ne man dama bëgg di muñ ndax dama dem ba xam ne boo muñee yàlla fay la ba pare fayul la Mbàkke Balla lu riis la wax mu ne boo muñee yàlla moo lay fay yoolab muñ ba pare fayul la olof moom da ko gàttal ne ku muñ rek muñ xam nga reetaan mën nga koo forcer mën nga tiit ree waaye muñ moom ci xol lay jóge ndax reetaan fukki siddit ak juróom benn la muñ 46 siddit adadu wàlliw ngay mun a def pour mën a muñ ci sa yaram soo ko mënu doo muñ moo tax mënoo mer di forcer muñ kon avocat bi na bàyyi tappale alalu jàmbur yi ci réew mi dossier yu bari la dinaa luqati benn par benn te lépp lu may wax day leer képp ku gëm ne nag den lay waxal lu ñaaw déformation mu fi buñ taxawee ci kanami àttekat bi senegal di réewum luwa dinañ xam ne nekk avocat taxul nga mucc ci luwa lenn rekk mooy tax nga mucc ci luwa mooy bañ a wax loo xamul bañ a def lu baaxul kese lu dul lii mënoo mucc ak koo mën a do donc lii laa ñëwoon pour wax leen mu gàtt lool pour ngeen déggee ko noonu yéen journaliste yuy toj tas xibaar am ngeen liggéey parce que dossier bi lu ñu war a topp la am na yeneen yuy ñëw ci ginnaaw yoo xam ne dafa dafa war a leer parce réew mi kenn moomu ko ñun ñëpp ci yem kenn ku ci nekk na yem fa mu war a yem. def la mu war a def dox na mu war a doxee wax na mu war a waxee su jeexee rek jeex na wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.